boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ma dellooti jël man saa xalim sot ko sëpp ko ci saa daata jël man saa xalim sot ko sëpp ko ci saadaata bindal seexuna baara tagg te man bindi way yuy jëm ci sëñ baara laay sago ndebuur yàlla moo def man ma yaakaar ko sopp ko te sopp ko moom sëñ baara daa war ab jullit ndega moom ku noonog moom bu deewee ñu andax yéen du ngeen màggal ki tax mag ñi am ngërëm ci sëñ bamba bis bam fee ñi dunyaata topp ko andax yéen du ngeen màggal ki tax mag ñi am ngërëm ci sëñ bamba bis bam fee ñi dunyaata topp ko te sëñ baara bam feeñee la seex bamba woo ñoñam ni leen gan gi kat seenu ngërëm mooy ki andi ko takat jëkku loola ibra faalang fa wër di maaj tanaa mag ñi aadoom tey du naaj yàlla def na ko takat jëkku loole ibra faalang fa wër di maaj tanaa mag ñi aadoom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare ci teew gi ngeen teew ci kër Seex Baara Laxat Mbàkke gi di ko teeruwaaleel ganam gu tedd gi nga xam ne moo ci ñëw mu di sëriñ Mouhamadul Basir Mbàkke moom Seex Abdul Xaadir ñëw fi nga xam ne bis bi ñu bari dinañ ko fi dàkk ndax xam ne dina fi ñëw ñu siyaare ko sëriñ bi nag sa waajur sa kilifa ñëw na ci sa kër gi nga xam ne du gan ci kër gi te jàpp naa ne yaa ngi ko doon bàyyi xel mu ñëw fi ndax ku nekk xam na seen diggante ni nga xam ne ni la demee ndax ku nekk xam na ne yow nangu ngaa doon taalibe sëñ Tuubaa waaye moom tamit nangu naa seere sa jëf kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal bu baax sëriñ Basiiru sa tànk dem yeeg dikk yi yàlla na ay daraja ak i màqaama ci barkeb sëriñ Tuubaa ku nekk xam na ne foo ñëw am na koo xamante ni daanaka mën na na xañ nga ko wàllam ci yow ndax ku ñëpp soxlaandoo waaye bis bii day sa bis boo xamante ni yemale ko benn bis ñu ngi ñaan suñu borom guddal saw fanta wéral ko di ñaanal sëñ seex Bara mii nga xam ne ku ñëw ci dëkk bi dangaa ñëw ngir màggal si waaye ku ñëw ci këram gi jikkoom aku meloom moo la fi indi sëriñ seexam sëñ mahamadan a ngi nii toog ànd ak njabootu sëñ mahamadan gépp kon dañuy jël kàddu gi jox ko sëñ Cheikh Bara Lahat sëriñ abo mi ngi nii di ñëw moom tamit moom sëriñ Fallou Asta Dieye di fi waaye di jiital ci nuyoo boobu sëñ Basiru mi toog sëriñ bi ci nuyoo bi sëñ Basiru mi toog ak Serigne Cheikh. ak Serigne seex Mbacke. moom sëñ Mahamadan. moom Serigne Mahamadan. ak sëñ Baara. ak Cheikhou Leyine Baara. mi nga xam ne mooy borom màggal gi. mi nga xam ne mooy moo toog nii di doon Serigne Mahamadan Mbacke moom Serigne Massamba Sy di ko ci Serigne Bass. nee ñi ngi sàkku ci Serigne Bass. ginnaaw bu ñu ko nuyoo. ginnaaw bu ñu ko nuyoo. siyaare ko. siyaare ko. sargal ko ci bis bu tedd bii. sargal ko ci bis bu tedd bii. di bisu waajuram. bisu waajuram la. di bisu sëriñ Cheikh mii. nee di bisu waajuru sëriñ Cheikh Mahamadan mii toog moom di bisu waajuru sëñ Mouhamadou Lamine mais. di bisu waajuru sëriñ Mouhamadou Lamine mii toog ñu tuddee ko sëñ Baara. mu jottali ñu nuyoo bi. mu jottali ñu nuyoo bi. Cheikh Mouhamadou Mountakha. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. ko ñaanal yàlla mu yàgg fi. di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi. te am wér. te am wér. ba liggéey bii mu koy liggéeyloo moom Serigne Bass. ba liggéey bii muy liggéeyloo Cheikh Abdoul Basir Abdou Khadir waxtu wu ne mu ci am ndam. waxtu wu ne di ci ndam. te liggéeyu Serigne Touba. ne liggéeyu sëriñ Touba. ku ko wër yor du ko yor. ku ko wër yor du ko yor. ku ko mun yor du ko yor. ndax sëñ Touba moo yor léppam. ndax sëñ Touba moo yor léppam. kon sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. ne kon Cheikh Madou Basir ñoo ngi lay nuyu. te di la siyaar. di la siyaare. di la ñaanal itam. di la ñaanal. ndax sunu diggante. ndax ne sunu diggante. yàgg na du tey. yàgg na du tey. booba porte parole amul. nee booba porte parole amul. bi mu amee. bi mu amee. nga di ko yaatal. nga di ko yaatal. ngir bëgg njabootu sëñ Tuubaa gépp gis ci seen bopp. ngir bëgg njabootu sëñ Tuubaa gépp gis seen bopp ci lii. ña nga jël ñanga tànn fa guy mbind. ña nga tànn ca guy mbind. kenn jiituwu ma ci. nee moom mii kenn jiituwu ko ci. te ba tey jii dara delluwu ci gannaaw. te ba tey bi dara dara génnewu ko ci. da da jëf ci man. nee li ngay jëf ci moom. da ngay jëf ci man. da ngay jëf ci moom. bay dàkk samay soxla. bay dàkk ay soxlaam. loolu nag du mbëggal dong moo ko man nee loolu mbëggal rek moo ko man a. jotaay bii. jotaay bii. lii ma wax. lii mu wax. munu ma koo bañ a seere. nee munu koo bañ a seere. ndax damaa wax léegi ni dafa wax léegi ni man ku def ku bañ ku ku ku may defal lu baax te bañ ma wax ko. Serigne Cheikh Bara nee na ku koy defal lu baax bañ mu wax ko. booy boo nga dencaat ko ndànk waaye boo nga dencaat lu baax loolee ndax man boo ko defee maax ko ndax nee na moom ku ko def lu yàlla mi bind nit ñi yàlla mi sax daa bëgg bu defee bu buñ def buñ defalee ñu sant ko nee na yàlla bu ñu defalee sant ko ba tax mu ne bu ngeen santee ma dolli leen ba tax mu ne bu ngeen santee ma dolli leen bu ngeen weddee ma mbugal leen bu ngeen ku ma may te santoo da ngaa weddi ndax ku ma may te santoo rek da weddi te ku ci weddi ma mbugal la te ku ci weddi ma mbugal ginnaaw yàlla bëgg loolu ginnaaw yàlla bëgg nag as asamaan nit kon sëriñ bi kon sëñ ba na nga na nga toogee woon ak Cheikh Sidi Muxtaar sëriñ Cheikh Baar nee na na nga toogee woon ak waajuram borom Tuubaa Cheikh Sidi Muxtaar dara umpunu ci dara umpu leen ci lépp ci sun kanam la lépp ci suñu kanam la lépp la bawoon ci yow ne Cheikh Sidi Muxtaar lépp la bawoon ci yow nit da doon ñëw ci moom sax wax ba daane nit da daan ñëw ci moom wax ba daaneel fekk nga tukki nga tukki mu wóor ko ni mu wóor ko ni nit kii da dalaa dalaa bëgg a wuutu sa gannaaw mu nit kii dalaa bëgg a sa ginnaaw rek mu ne ko négal ba sëñ Bas ñëw mu ne ko négal rek ba sëñ Basiru dama koo yónni waaye du ca yàgg dama koo yónni waaye du yàgg ci yónnentu ba loolu ci suñ kanam la ne loolu ci kanam la kon ñun yéen la war a jàppee kon ne la war a jàppee dafa bari daa bari ndax jàpp nga nu ne jàpp nga nu te nun as gor la nu te nun as gor la moom la ñu fas yéenee doon moom la ñu fas nu jàpp nu jàpp la ku nu jàpp ñu jàpp la ba ba ca toppaat ba ca toppaat yaag sëñ Abdou Lahad Baara yéen a bokk lépp yaag sëñ Abdou Lahad Baara waajuram yéen a bokk lépp kon dañ leen a war dañ laa war a téye kon dañ laa war a téye ba ca des ba ca des mooy sa jikko mooy sa ndax waxoon naa la ko ne waxoon na la ko bari na ku lay sikkal bari na ku lay sikkal la mu lay sikkalee la mu lay sikkalee mooy mooy teral sam noon la lay sikkale mooy teral sam noon rek la lay sikkale ndax ñu ko man daa bëriwul ndax nee na loolu de ñu ko mën bëriwul te bari na ku ku ku ku jéem ma wax sa sikk. bari na kuy jéem sa sikk. loolu du sikk. loolu rek lay mer te loolu du sikk. jikkoy nit ku baax la. jikkoy nit ku baax mooy loolu. sëñ Touba la xool ci ñun ñun it sëñ Touba la ñu xool ci ñoom kon ay naaw la lañ ci ñun ci ci ñun. non non ay ci ñun laa wax. nee na ci ñoom. li ma loolu may wax noonu. loolu muy wax. man mii la engagé. nee na moom mii toog di ko la engagé. kon. kon. boo dikkee toog fii. boo fii. liñ xam ci yow lépp duñ ko wax. ko ndax wax naa ko fii léegi sëñ Moustapha. wax na ko léegi fii sëñ Moustapha Alaaji Baara. sëñ Moustapha Alaaji Baara. dama kon ànd nan màkk ñaar fukki yoon ak benn. dañu ko ànd nan màkk yow màkk ñaar fukki yoon ak benn. kon bari na lu ma xam kon bari na lu ma xam ci yow waaye sëñ Sidi Mokhtar dane woon. ne borom Tuubaa Cheikh Sidi Mokhtar dane woon. nit doo xam lu baax loo nga xam ci moom lépp. nee xam lu baax la nga xam ci moom lépp. nga toog ci benn jotaay di ko wax. nga ci benn jotaay di ko wax. nee na fii ba déen. nee fii lu ko dal yow. te man bëgguma dara dal la. nee na moom laa bëggul dara dal ko yow nee na bëggul dara dal la waxul boppam moo tax li nga li li nga baaxle lépp moo tax li ma xam ko mu xam ko du ma ko wax ci jotaay bi ci man nag moom nag aw ma waxu biir néeg sëñ Cheikh Baar nee na am ma ay waxu ruq ak ay waxu ruq bëggoon mu def nii déedéet nee daa bëggoon mu def benn parole la am benn parole la man bu ñëpp àndoon jëm fenn bu ñëpp àndoon dama gis ni fee baax dama gis ni falaay na ba keroog yàlla dama xamal ni fii baaxul falaay na ba yàlla di ko xamal ni fii baaxul ndax ngërëmul yàlla dong laa fay sax ndax ngërëmul képp la fay sax kenn munul mun munu lor kenn munu koo lor ku dul yàlla ku yàlla kum doon ku nekk boo ma loree. kum boo ko loree. ci yàlla la jaar ci yàlla man loolu lay dëgërlu. nee loolu lay dëgërlu moo tax lu baax lu ma gis. moo baax lu dinaa ko wax. dana ko wax man duma ci nëbbutu. du ci nëbbutu du ma ci làqu. du ci làqu du ma ci du ma ci tooñ. du ci tooñ du ma ci fayu. du ci fayu du ma waaye fu ma gis lu baax daal. waaye fu mu daal. dinaa ni lii baax na. lii daal lu fu ma gis qualité. fu mu gis qualité dinaa ni lii qualité la. waaye man li ma gis rek. dinaa ko moom li mu gis te mbaax dong lañ gis ci yow moom lañ xam ci yow ndax lu waay mën a waxit ndax lu waay a waxit ginnaaw ka nga xam ne mooy sañ Touba ne ginnaaw ka nga xam ne mooy sëñ Touba yilif ñëpp yilif lu mu bëgg ñëpp def ko lu mu bëgg ñëpp def ko moo la ne lu may wax yaa koy wax moo la lu may wax lu may jëf yaa koy jëf lu may jëf yaa koy jëf fu mu munta dem yaa fay dem fu mu dem yaa fay waaye ku gore waaw ku gore war topp waxi sëriñ war a waxi te kenn gisul ci yow lu war a tee nga topp. mais kenn gisul ci yow lu tee moo la topp wax jooju. sëriñ Touba dafa wax ne. sëriñ Touba dafa nit ki day am jikko. nit ki day am jikko. wala mu ñàkk ko. wala mu ñàkk ko. nee na su fe euh, euh, sikk nit ki day am sikk nee na nit ki wala mu ñàkk wala mu na bu fekkee amoo sikk bu fekkee amoo sikk sa ñàkk sikk googu sa ñàkk sikk googu war na laa doy sëkk war na laa doy nga fexe mu bañ a dañ nga fexe mu bañ a dañ walis ngay wax sikkus jàmbur walis ngay su fekkee da nga am sikk su fekkee da nga am sikk sa am sikk sa sikk googu nga am waaye fexe koo dindi waaye fexe koo dindi moo dën moo gën ngay wax sikki jàmbur ku ne sa bopp da laa war a doy a doy ku xalaat sa bàmmeel sa bopp doy sa bàmmeel sa bopp la doy amul dara lu la fay wétti lul sa jëf lu dul sa jëf. ak si léegi sa mbokk bopp mi ngi koy nuyu. ak ak sëñ Baara. ak Cheikh Loum Baara mi mu ànd. sëñ Sidou dafa waxoon ni. na. sëñ Cheikhum sëñ Mahamadan day. sëñ Cheikhum jàpp naa ko ngir baayam. jàpp naa ko ngir baayam. ndax baayam wax na ma loo xam ne nit mosuma koo wax. mais baayam ma loo xam ne nit koo wax. waaye mu ma sëñ Cheikh nag li ma ko jàppee dëgg-dëgg. waaye sëñ Cheikh nag li ma ko jàpp dëgg-dëgg doo ko seen muy dem mukk. doo ko seen muy dem mukk. rakkam newul ci gannaawam. rakkam newul ci gannaawam. wala doomam wala doomam. mu ne ma lii jàpp bu ñëpp defoon ni moom. bu ñëpp defoon ni moom wax de. bu ñëpp defoon ni moom. bu ñëpp defoon kër yëpp booloo doon benn. kon ñëpp booloo doon benn. ndax ku ne ña nga yor boo leen boolee ñuy benn. ndax ku ne ña nga yor buñ ko laajee ngeen di dank bi. buñ ko laajee ngeen di dank ñëpp doon ben dank. ñëpp doon benn. nee lépp baax. nee na lépp te loolu firnde la ci tey jii loolu firnde la dafa wax sëñ Bas léegi ni ko dafa wax léegi ni ko am wëllëre nga ku am wëllëre nga waaw ma ne ko lii nga wax sëñ Bas ma ne ko sëñ Bas ñëpp xam na ne am na ñëpp xam na ne am waaye nag daan na ci yow moo tax nga wax ko nag kenn du mayee loo amut ne kenn du mayee loo daan na ci yow moo tax nga ndax li fi indi sëñ Bas ndax li fi indi sëñ Bas mu yow mii la fi indi nee na yow te te waxoo sëñ Bas Bas ni ko ngi ñëw ni ko maa ngi ñëw sëñ Bas néewu la maa ngi ñëw kon li ko fi indi moo la fi indi kon kon kon kenn du maye loo kon nee na kon sëriñ bi. kon sëriñ bi bëggoon naa kàddu yi gën a gudd. bëggoon waaw te gis nga li may wax nii. suba buñ ma laajee ma waxaat leneen lu. raw lii. buñ nee wax ko ca rajo Jumaa ja ma wax ko ca buñ mënee nañ ko teg ci télé yëpp suba du ma tee nelaw. ndax ndax lu ca nit di wax man faliwu mu mucc ci jafe-jafe. ñoo ngi lay ñaan nga mucc ci làmmiñ yu rëy ñu ngi mucc ci làmmiñ yu mucc ci noonu. mucc ci noonu. te bii. te wax naa ko léegi ay yoon. Serigne Cheikh Bara Lahad wax na ko léegi. benn fanu tabaski lañ ko daan màggal. aw tabaski lañ ko daan màggal. ci benn fan ba. ci benn fan sëñ Mourou Baara di ko màggal ca Taysiir. sëñ Mourou ko màggal ca Taysiir. ba mu yàgg mu andi ko Mbàkke Kajoor. ba mu yàgg bi mu fi jógee sëñ Abdou di ko màggal. bi mu fi jógee sëñ Abdou ko màggal. bi mu fi jógee sëñ Sidi Moxtaar tàgg ko sëñ Saliou. sëñ Saliou ni ko damaa bëggoon ñu toxal ko. damaa bëggoon ñu toxal ko. waaw ci ci ci ci bisub juddu bi. ci ndax góor yàlla ya nga xam ne. ndax ne. fa newoon. dañ faa uboon lam ay lambi lislaam. dañ faa ubboon ñëwoon ci sëñ bi ngir yokku. ñëwoon bi ngir yokku. bis bi sëñ Baara gane àdduna. bis bi sëñ Baara bi wax ne leen. cëlee leen sëñ gan gi ñëw. gan gi ñëw li ngeen fi doon wut indaale na ko. man ngeen a dellu. mën ngeen a ñëw dellu. sëñ Saliou ne damaa bëgg bis boobee. ñu yóbbu ko ca. ngir ku ca jëfati wala nga dox ci wala nga wax ci la ñooñee amoon nga am ca ndax yàlla yaa da loolu kat mooy bis bii tey kon yaa xam yéen a xam li ngeen bëgg ne leen ko sëñ Baara defal te mbooloo mii fi daje bëgg nañ nu wóolu nañ nu yaakaar nañ te ñun sëñ Baara la ñu yaakaar sëñ Baara sëñ Touba sëñ Abdou Khadir sëñ Touba la am sëñ Massamba sëñ Touba la keneen koo tudd sëñ Touba kon nga ñaan ci doole sëñ Touba ku fi teew tey jii góor ak jigéen sa aajo faj. ci Cheikh Mbacke moom Serigne Mahmadan mi ngi leen di nuyu bu baax nee na mi ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi. nee na seex Muhammadul Basiiru mii mu fi dajeel. nee na te daje gi. nee na du asaar. nee na wóoroon nañu ne. nee na ni mu war a taxawee fii. ak ñim mu war a dem ci ñoom. nee na sëñ Seex Baara Laxan Mbàkke mii dana ci bokk. nee na sëñ Seex Baara Laxan mii day koo xamante. nee na bi ko sëriñ bi joxee ndigal. muy sëriñ Sidi di ko yabal ci lu xew lu nee na di ko yabal ci lépp loo xamante ni xew-xew diine la. buy buy dem sax ànd nee na sëñ Cheikh Bara Lahad mii buy dem du ànd ak kenn. mooy nee na mooy dawalab otoom. moo xam ndar la. nee na moo xam ndar la. moo nee na moo xam kawlax la. waxtu nee na waxtu wu ne. yabal nañ ko ci béréb. nee na yabal nañ ko ci béréb. mu jóge fa. nee na ànd moom dong dawal otoom nee na ba ñëw ci ki moom bis ba jébbal ko la bi nee na jébbal ko kàdduy sëriñ bi ak ak cantam loolu na loolu ci la sëñ seex Bara Laxan mi sax dàkk lii mu na lii mu seeral Cheikh Mamadou Basir nee na ñoom mi ñoom ñëpp ñoo ko seeral Cheikh Mamadou Basir nee na bi nga xamee ne yàlla dogal na nee na ñu sos mbooloo mi nga xam ne ñooy organiser màggal gi. nee na loolu ci ndigalul alxaaji Mouhamadou Lamine Baara Mbakke Fallilu la woon. nee na moo tànn ci coobareem. nee na seex Mamadul Basir mii. na jiite loolu. nee na te taxaw ci temm. nee na boobee mu ko waxee ak léegi. nee na njaboot gi mu boole woon ak moom. ñooy ànd. nee na lépp lu xew. nee na fu dara xew fu nekk. nee na danañ fa daje. nee na lépp lu ñu war a wax ci lu baax. <coughs> nee na ñu wax ko. nee na loolu moo doon doxinu Cheikh Mamadou Bassir. gisul ne. nee na gisul ne. xalif général de Mouride moo ko tànn. nee na gisul ne xalifa général de Mouride moo ko tànn. def ko muy yor kàddoom. nee na def ko muy yor kàddoom. di ndawam di ndawam. ci lu nee na ci lu feeñ. ak ci lu nëbbu ak ci lu nëbbu. loolu gisu ko. nee na loolu de Cheikh Mamadou Bassir mi gisu ko. la mu gis moom nee na la mu gis mooy. ñiñ ko booleel. ñiñ ko booleel. ñëpp ay nawle lañu. ñëpp ay nawle leem la leen def la leen def. danañu daje fenn. nee na danañu daje fenn. mu ne ma jiite. mu ne ko moom Serigne Cheikh mii ñëwal nga jiite. ma ne ma ne kuy sëriñ Touba. mu ne ko moom sëñ Seex mii ne ko kuy sëriñ Touba. ku mu tànn. nee na ku mu tànn. kookee rek mooy kii kilifa nee na kookee de lu mu tuuti tuuti kooka mooy kilifa gi moom mii mu wax lool. nee na te yow Seex Mamadul Basir sëñ Touba moo la tànn. <coughs> melokaan woowu nag. nee na melokaan woowu nag. wu sax ci moom la. nee na wu sax ci yow la. ci Alaaji Baara. nee na ci Cheikh Mamadou Lamine Baara. ak la ko ña ko jiitu woon. ak ña ko jiitu woon. ba ci Cheikh Sidil Mokhtar. dara mës cee soppeeku. nee na dara mës sa soppeeku ci looleen ñu la def. doxin wu baax. nee na muy doxin wu baax. ko ñëpp nawee. nee na di doxin wu la ñu baax ñëpp nawee. sëñ Cheikh Baaralaat mii. nee na sëñ Cheikh Baaralaat mii. moom ndaw la ndaw la ci kër gii mu nekk nee na ndaw la ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gii mu nekk. lu xew lu ne. nee na lu mas a xew lu nekk. sëñ Sidi Mokhtar dafa bari woon itte lool. nee na Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke dafa bari woon itte lool. ndax itte jooju. nee na itte jooju. dana dana dinaa ko firndeele lenn. nee na moom mii di wax ne sëñ seex dina ko firndeele lenn. damaa gis bi fi sëriñ Mahmoudan jógee. nee na bi fi seex Mahmadul sëñ Mahmadan Mbakke jógee. ci ci ci ci yoor yoorub ajjuma. nee na ci yoor yoorub ajjuma. ñu ñu waxuñu ko kenn. nee na ñoom ñii di njaboot ak sëñ Mahmadan waxuñu ko kenn. loolu kilifa yi rek lañ ko wax. nee na ñoom kilifa yi rek lañ ko waxoon. moom sëñ Sidi Mokhtar. nee na moom seex Sidil Mokhtar. kenn jiitu woo. nee na kenn jiituwu ko ca xew-xew nee na ba noppit moo fa mujj ñëpp te loolu dara waralu ko nee na te loolu dara waralu ko lu seere si nga xam ne lu dul seere si nga xam ne sëriñ Mahamadan seere woon na ko ci moom nee na seex sëriñ Mahamadan seere woon na ko ci seex Sidil Muxtaar nee woon na day bu fi jógee nee na moom sëriñ Mahamadan waxoon na de bu ma fi jógee moom moom sëriñ Sidil Muxtaar mii moom seex Sidil Muxtaar mii doy na ma ci mu taxawu nee na doy na ko ci mu taxawu ko loolu la la ko dindi. nee na loola la ko dindi. bi mu génnee àdduna. nee na bi mu génnee àdduna moom sëñ Mahmadan. daf daf daf sëñ ma dem si sëñ sëñ wax ko ko. nee na sëñ Saliou. sëñ Saliou waaw mu dem sëñ Saliou. nee na moom mii mu dem ci sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké. yëgal ko ko. nee na mu yëgal ko xew-xew boobu. mu ne mu ne mu mu ne da ngay seet sëñ Mountakha sëñ Mourtala mu jiit mu taxawu ko. nee na moom Serigne Saliou daal di koy jox ndigal ne ko dangay dem ca Cheikh Mamadou Mourtada muj taxawu ko. ma woo ma laaj waa kër ga. nee na mu laaj waa kër ga. ñu ne ñu ne ko Cheikh Mourtada Mbacke ma nga ndar. mu woo Moustapha Thioune ma fa nekk. nee na mu woo Moustapha Thioune ma fa nekk. te nekkaloon fa Serigne Mahmadan. te nekkaloon fa Serigne Mahmadan ca ndar. wax ko ko nee na mu wax ko ko. mu bett ko lool. nee na mu bett ko lool moom. Cheikh Mourtada mu ne ko sëñ Mourtada de mi ngi fii ci kër Mor Sourang. nee na si mu ne ko Cheikh Mourtada de mi ngi fii ci kër Mor Sourang. maa ngi fay dem léegi. nee na mu ne ko maa ngi fay dem léegi. jarul ngay taal sa oto ñëw. nee na ko jarul ngay jóge Touba di taal sa oto di ñëw. nee na la na la wóor ne sa jëmma fi nekk. nee na na ko wóor ne sa jëmma fi nekk. dem gis sëñ Mourtada wax ko ko. nee na mu daal di dem gis seex Mouhamadul Mourtada wax ko ko. mu mu mu rëjël ko bu baax a baax. nee na sëñ Mourtada xaw koo kii bu baax a baax a baax a baax. ne day ku baax day nee na mu daal di cay def seereem yu sell ne ku baax a baax dem na muy sëñ Mahmadan. jullite nee na mu ne jullite dem na. bëgg nee na ku bëgg sëriñ Touba dem na. bëgg seex ma Samba. nee na wuy ji seex ma Samba. bëgg seex ma nee na bëgg seex ma sàmba nee na mu ne ko dégg naa ko. nee na Cheikh Mourtada daal dina ko waaw dégg naa ko. nañ toogee ab diir mu woo ko. nee na ñu toog ab diir Cheikh Mouhamadul Mourtada daal di koy woo moom ndaw li. ne ko man de damaa am ngant ndax ngant li ma am. nee na Cheikh Mourtada ne ko man de damaa am ngant ngant li ma am. mooy mooy damaa yeex waajtaay lool. nee na Cheikh Mourtala ne ko man de damaa yeex waajtaay lool. su ma su ma su su su ma bëggoon a dem ci guddi gi képp du ko mën. nee na su si Mourtala ne ko man de su ma bëggoon a tëb tëb waaj ci guddi gi dem rek daanaka duma ma ko xaw man léegi nag dama bëgg nga dem ci sëñ Abibu Mbàkke nee na Cheikh Mourtala ne ko léegi dama bëgg ñu dem ca sëriñ Abibu Mbàkke imaam wax ko nee na wax ko ko mu teewal ma fa nee na mu teewal ma fa sëriñ nee na mu teewal fi sëriñ bi loolu mooy mooy mooy mooy mooy pas-pas bi nga xam ne. nee na loolu mooy pas bi nga xam ne. xam nañ ko ci moom. nee na xam nañ ko ci moom. moom moom Cheikh Baara tam. nee na yow sëñ Cheikh Baara mii. bi la sëriñ bi tànnee. nee na bi ko sëriñ bi tànnee. lu xew lu ne mu yónni la ca. nee na ko mu ne ko lu xew mu fay yónni sëñ seex Baara laxat mii. say kàddu nee na yow Cheikh Baara say kàddu kenn mësu koo constaté. nee na say kàddu kenn mësu koo constaté. li ngay wax day leer naññ. nee na li ngay wax day leer. te dëggu. te dëggu. te am ci pas-pas. te am ci pas-pas. nee na loolu rek la yoonu murid yu bëgg nee na moom la Serigne tubaa bëggoon nee na bëggoon ñu ànd di benn di yëkkateendoo di tegandoo di yëkkandeendoo di tegandoo di digle yu baax yi nee na di digle lu baax di tere yu bon yi di tere lu bon li loolu rek ci la Serigne bi nekk nee na loolu ci la Serigne ne woon njabootam gi ko fi wuutu woon it nee na njabootam gi nga xam ne ñoo fi wuutu woon Serigne Touba it ci loolu rek la nekkoon nee na mësuñu caa soppi dara moom mi nag nee na moom Cheikh Modou Basir mii. ne ko yoral sama kàddu. nee na sëriñ bi ne la yoral sama kàddu. ñépp ko rafetlu nañ ko. nee dëggu ñëpp ak baax rafetlu nañ ko. ndax xam nañu ne. nee na xam nañu ne. lu mu wax lu ne. nee na xam na ne yow saa boo yëkkatee sa kàddu wax ba noppi. mooy waxi sëriñ nee na xam nañ ne mooy waxi sëriñ bi rek. day ku bañ nag ñu ñu jàmm la. nee na ku bañ ñu jam la. doo doo nekk ci kanam nit ñi. nee na doo nekk ci kanamu nit ñi. ndax nit ñi moom. nee na nit ñi moom. boo baaxee ba ëpp. nee na boo baaxee ba ëpp. du tax ñu naw la. du tax ñu naw la. boo bonee ba ëpp. nee na boo bonee ba ëpp. du ñu sikk la. du tax ñu sikk la. doxin yooyu. nee na doxin yooyu. yàllaa ko mooñaale ak nit. nee na yàlla moo ko mooñaale ak doomu aadama rek. waaye ñi xam lu baax. nee na waaye ñi xam lu baax. xam lu bon. xam lu bon. ku nekk ci lu baax xam nañ ko. nee na ku nekk ci lu baax xam nañ ko. képp ku nekk ca safaan ba itam. nee na képp ku nekk ca safaan bay tamit nee na xam nanu ko loolu war a nee na loolu de kon sëriñ bi warulaa metti yow Abdul Basir Mbàkke mu sëñ Abdou Xaadir nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nee na mi ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp nee na mi ngi koy teg ci loxol borom bis bii nee na di sëriñ Seex Baara Laxat nee na ci bisu maamam ju tedd ji nee na mi ngi nuyu sunu kilifa gi kilifaam gii di sëriñ Seexam sëñ Mahmadan nee na moo ko rakkam sëriñ Baara Mbàkke nee na di rafetlu tànk yi ak kàddu yi ak jéego yi ngeen def ba ñëw fii nee na sëriñ Seex Baara Laxat sëñ bi nee na wax ji du gudd nee na li mu waroon a wax lépp sëñ Seex waxaale nag ko nee na ci ay seere yu jëm si ci yow neena du weesu cant rek ak ngërëm ak seere nee na lii nga wax ci diggante moom mii nee na dara mënu ko weesu nee na ni nga ko waxee ni la dëggoo ci yow nee na bërki démb rek moo ci mujj nee na ca toolam ya nee na ban tollee ca liggéeya nee na taalibeem ya nekk ca tund wa yépp la jox ndigal nee na boole caag lépp lu ñuy naan ci ndox ak i teraanga mu yónnee ko ca tooli Seex Basiru nee na loolu matagut ëppagut fukki fan ak juróom nee na yow kon si jëfam ci ci sëñ Seex Basiru mi nee na sëñ Seex Basiru nee na yónneen yi ngay yónni ci moom ndaw yi day bari ba nee na ba boo ko waxee sax da koy jëlale sax nee na da day tegaloo ba mu ëpp rek nee na xam na ne ndaw yi li ñuy bari it xam na ne sëñ Tuubaa rek a tax nga koy def nee na mi ngi lay sant bu baax a baax nee na di la gërëm nee na jàpp gi nga ko jàpp nee na jàpp gi yàgg na lool nee na ca jamonoy sëriñ tubaa Seex Saaliwu la woon nee na te dara mosu cee ñaaw nee na saa su xëyee day gën a rafet nee na mi ngi ku senn seere nee na bi Seex Sidi Muxtaar di soog a nekk Sëñ Touba nee na ci jataayub Sëñ tubaa bi nee na màggal gu njëkk ga. nee na am na lu la Cheikh Sidi Muxtaar loon ci kanam. nee na yaag moom ak Cheikh Sidi Muxtaar ak yàlla rek. nee na sëñ Sidi Muxtaar ne ko Cheikh Baari mii de ku mat a jàppale la. nee na mu daal di koy wax ne ko maa ngi lay booleeg Cheikh Sidi Cheikh Baara Laxat mii. nee na ndax moom bàyyiwu ko fi. nee na di wuti leneen. nee na loolu Cheikh Sidi Muxtaar te yàgg na. nee na te loolu. nee na mu ànd ak Cheikh Sidi Muxtaar ci ngor. ba ni fi Seex Sidi Muxtaar jóge nee na yow Seex Baara bu la waxee lool xam nga li tax mu wax la ko nee na ngor nga ànde woon ak moom nee na ak pëstéef ak xoole ko sëñ Tuubaa nee na moo tax Seex Sidi Muxtaar jàppale ni mu la jàppe woon nee na jël sa alal ak sa waxtu ak li nga man ak li nga mënul lépp nga jeexal ko ci biir Seex Sidi Moxtaar nee na Seex Sidi Sëriñ Tuubaa ku koy jëfal nee na bu sa mbir delloo ginnaaw. kon nee na la nga doon liggéey daa wérul. moo tax mboolem ci ku nee na mboolem ci koo amoon ci ku baax. tey la la a nee na tey la la gën a jàpp. tey la la gën a tey la la gën a téye. nee na ndax saw doxin. ak sa jikko. nee na sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal bu baax. nee na ci barkeb sëriñ Touba. nee na suñu borom kàttanal la. wéral la nee na nga yàgg àggale mission bi. nee na ginnaaw Cheikh Sidi Muxtaar tamit. nee na bi ko Cheikh Sidi Cheikh Mouhamadul Muntaxa wóoloo. nee na ba di ko doxloo li mu koy doxloo. nee na kere bi mu koy yeetal ci kanamu Cheikh Serigne Bassirou mi la. nee na waaye loolu ba léegi. nee na la nga jàppoon ci seex Sidi Muxtaar. nee na moom nga jàpp Serigne Muntaxa. nee na xam na ne loolu Sëñ Tuubaa rek a tax nga di ko def nee na moo tax soppiwoo ci dara nee na pëstef boo ci amoon ak itte yoo ci amoon nee na tey ji nga ko gën a am nee na ki ngay liggéeyal muy Sëñ Tuubaa yal na la fay nee na yow sëñ seexam sëñ mahmadan sëñ bas abdou xaari nee na mi ngi lay sant bu baax nee na ginnaaw bu ngeen bokkee li ngeen bokk nee na seq liggéey bi nee na ba mu ko tàmbalee moom ba nëgëni. nee na yaa koy ànd ak moom. nee na di ci xool seex ma sàmba ak sëñ Touba. nee na yow say at sax mayetu la ko. waaye lépp pësteef rek. nee na fu nu wootee. yaa fay njëkk. yaa fay mujj. doo yàkkamti. doo tayeel. doo ne sonn naa. nee na te am ngay ndaw. yu ko mat. nee na koo ci yónni woon rek mu doy. nee na kon nag. la Sëñ Touba daa jëf ci nee na la Cheikh Massamba daan jëf ci kër Sëñ tubaa loolu rek nga koy wéyale. nee na loolu rek nga wéyale ci. nee na moo tax nga am ci pëste bopp. nee na sëriñ bi nee na ñu jeexale foofu kàddu yi. nee na mu ngi ñaan ñu teew fi nëgëni déwén. ak jàmm. nee na te daje ngërëmal Sëñ tubaa Alaaji Tidiane Gadiaga mooy nuyoo Sëriñ Bachir noonu. xalifa Ndingiraay Dingiraay sëriñ sëriñ Basirou dana ko ñaanal sëñ Mahmad sëñ Seexam sëñ Mahmadan mu ne ko déedéet yow la sëriñ bi jiital yow la tànn ñaanal kon wax leen amin amin barke sëñ Tuubaa amin jàpp sa njàmbur bi taalib ku may laal ma wax la ko ku may lor nan juuyoo mu far jàdd may jubal dana jàpp sang jàmbur ku may laal ma wax ko subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ñuy déglu ci mboole seen seen yi nga xam ni téye naa ko te dinu seetaan ni na ko doon defee ca suba ba léegi rek noo ngi yëkkatiwaat sunu kaddu eh, ci ndigalul soxna maam Awa Mbakke mii nga xam ni moo jëm ji toog Cheikh Abdou Samad Mbakke ñoo bokk lépp yàlla boole koog ku baax muy Cheikh Ahmadul Kara yàlla dogal ndigal boole leen ñu bokk seen bokk googu ndigal nag boole leen ñu ànd àndinu gor ànd bu rafet àndum nawlente e yàlla dogal Cheikh Modou Kara moomu lépp loo xam ne soxna si ma ca mu nekk ca màggal gi waxtu ñëwee dana yeew aw nag boole ko jëfam ak ñaanam mu jëm si ci sëriñ bi muy Cheikh Abdou Samad loola doyut soxna si nekk foofa fa ko ndigal bay mu tobbi fa liggéey boo xam ni moom la doon ci sëriñ Tuubaa ndax ku xam sëriñ bi xam ni bi xitmatin aw bi ubbin aw adiyaati la mu dem fa manoon na ni sant sama boroom kër noonu ndigal indi ma fi ku dem ku dem ku topp ma dem ku ma ma dem waaye boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo